ahousubillahi mina seytaani rajim bisimillahi rahmaani rahim mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di siyaare yéen ñëpp ku ci nekk sa ak sant Serigne Djily Fall Xasaayit moo ñëw di leen présenté seen émission bi nga xam ne mooy atu xaside yi atu xaside yi nag ñu ngi koy tàmbalee fii suñu jëwriñ suñu xarit suñu soppe Serigne Mouhamadou Mara Seck Serigne Mouhamadou Mara Seck mu Madiyana wala Serigne Mouhamadou Mara Seck mu àdduna di suñu xarit di suñu jëwriñ ci xasaayit yi mom lañ ñëwon tay sétsu ko fi ci xéside yi pour waxtaan ak mom serigne Mouhamadou Mara Seck ñoo la lay ziare bu wér-wér. ginnaaw bi ñu sant juntu yent bi sant sallallahu alayhi wasallam sante serigne Touba ñu leen nuyu te di leen siyaara te di leen jéggulu te leen balu haqq di leen bal di ñaan suñu borom jégalu suñu bakkar di nuyu bokk talibé yi serigne Abdul khadir Fall ak serigne Mbàkke Jeng ak sëñ Assane mu ngi leen di siyaar baax ak soxna si ngeen àndal di di fas suñ kóllëre ak yéen ci barag bi ngeen fekk ndax nit amudul lu boppam kon ku dox ay yitte ñëw ba fekkee si ko rek amatulum la faye mu fas wóllëre wi ngir ñëw ngeen ñëw ci nun di ko fasit ngir ñëw ngir ñëw ngir jëmmi Sëriñ Tuubaa di ko fasit ngir ñëw ñëw ngir dundal xasida yi ak yoonu xasida yi ñu ngi leen ci siyaar baax a baax di siyaar mboolem ku fi teew sëñ Cheikh Abdou Guèye ak mboolem njaboot gépp ñu ngi leen siyaar ku ne xam na ne jànkatu boo ñëwee seet si ko am na lu mu war a nuyoo kon rek nga defal ñu ay bayit nu mu toll rek ñu barkeeloo ko ci sa jëm nu mu toll rek asbillahi min alsheytaani arrajim bismillahi arrahmani arrahim wa sallallahu ala sayidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima ya allahu ya alimu anta allahu ويا خبير ما له أصباه يا الله يا عليم أنت الله ويا خبير ما له أصباه هب لي من لدنك ما نهب يا من له الأمور أنت الرب وعافنا والتف بنا ونجنا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 سبحانه سبحانه ذو كنف وواخي الله حي صمد وباخي سبحانه ذو كنف وواخي ونحن في كنفه المنيه من كل شر وأذن شنيع مستمسكين بالقياس أحمد خير الأنعام مبتأ ومبتدا خير الأنعام منتهى ومبتدا من خالها في زمن الوباء أمنه الله من البلاء dangeen bi wax dëgg yàlla am na solo xéewale na neex na lool kon sëñ Mara bu ko defee ñu dugg ci waxtaan wi ma lay laaj jànkatu xasaayit nan la war a mën a bindoo ak jànkatu xasaayit nan la war a comportement mooy nit ku baax kon war a roy jiko yi seexul murabbi mo war don jiko jiko jankatu khasaid, ndax khasida yi waxi seigne bi la te mag moné ne nekul ay waxam moo ko fay wutu te liggey seigne touba kum ko def sab am nga sas jankatu xasida li war ab serigne bunu nu moko mooy jaamukat yàlla la war a la war a doon nit ku jub la war a doon ndax nun luñ fayee sëñ tubaa lu dul jub fayun ko bor kon nit ku jub la war a doon ci kaw jub ci biir jub ci biir nag mooy defal xolam ba mu laab mu yéene ñëpp jàmm suñ suñ ab Ahad daa wax naan ku yéene ñëpp jàmm ku amul jàmmit yow nga am jàmm bo yene ñepp jàmm ba nopi taatan sa xol xamni li nga li nga ne ak jaamu la xitma la nga nga war defer defar sa jikko ba ku la min du la bëgg bayyi bàyyi defar sa jëm ba ku toog fi yow du fa bëgg jox jóg mais melu jànkat damay teunk rek ndax xajul ci waxtaan wi waye dal sheikhul murabbi nga xamni ni ku ko gis xemem yalla xemem jup xemem bax xemmeem siraatal mustaqim mooy melaw jànkatu xasaayit jànkatu xasaayit fu mu sëriñ néewul rek war nag faa mën a wootu ci gépp na eh, bu njàng ma ñeexa jeexama mu njàng ma jàllee rek war foo xam ne koo ko gis xam ni kii mooy jànkatu xasaayit sëñ Mara damay gis ah, am njàngam sell ba nga xam ne ku ne da koy mën a déglu ah, léegi ñu bëgg xam jànkatu xasaayit moom lu mu war a mën a fay sëñ Tuubaa ci bu toogee bay jàng sëñ bi moo moom yëfam mooy xool ku ko neex mu def ko ci moom suñ bi du ko ni mën a fay waaye des ko mën a fayee ci suñ digg ak moom mooy li ma wax sànq mani mii rek dib donga bu ma waxoon samay wax fii génn ci mbedd mi dégg ko ko yokk wala mu wàññi ko dana ma naqari xasida yi ku koy jàng li nga mën a delloo sëñ bi sax mooy nga sellal njàng mooy faral di wax ni di bul wut lu neex nit ñi xoolal li nga man ta di ko def xool li neex sëñ bi nga koy def ndax nit ñi boo soppi toppee li leen neex bisa ngay ñëw doo mën a am lu leen neex ndax ñoom kenn mënta warul leen neex boo xoolee li wa neex sëñ bi nag nga tekki sa tànk boo xasee am sëñ bi am nga àddina am nga alaaxira te boo boobaa da nga am nit ñi am nit ñi nag mooy ña sëñ bi neex te te dëgg neex leen dëgg leen am tey boo boobaa ndax ginnaaw man saxut kenn dëkkut ci di bis boo manee tëlee ngay ñëw te mën a jàng du wéy kàttan koy def te kàttan saxut am xel koy def te xel saxut baata koy def te baatit du sax kon la nga man mooy teg sa tànk fa yàlla gërëm ak sëñ bi ngir boo demee ba tële sëñ bi yoral la boppam sun borom yoral la boppam. waxtaan wi am na solo lool ah, ñu lay laaj tamit ne jànkatu xasaay ak awkat ñoom ñaar lan moo war seen diggante ñoom ñaar ki nga xam ne dafa ñëw di la di ànd ak yow ci aw bi ak yow mi nga xam ne yaay jëwriñ ñoom ci xasida yi nan ngeen war a ànd yéen ñaar. sëñ ji ànd dafa am àq euh, ki bàyyi ñëpp tànn la ni yaa ko doy cib ànd war ngaa rafetal seen diggante dafa am ñaari àq àq bu mooy àqi saahir si. la nga xamni ne ko sekk tamit joge ci khasside yi war war nga ca jox war nga ko ca jox lam mom bam jeex tak dina ak ja ci dess mo yek yëg ni ki gënoo ko sam nawle la yalla la jitt rek nga nga jitt mo top ci yow mu xemem li nga yor bëgg ca di ko kon war nga rafetal sa diggante def ko ni sa bop ngir mu ñeme la ngir lamay sakku ci yow man ko am te it euh, euh, kenn mun ci dem ba morooma ginnaaw yow da ngay jàng mu lay xaw te aw gim lay aw mooy defar mbir mi te bu ko bu ci niwutoon mën a am lu mu ci feeñ koy kon mënoo koo ñàkk mënuloo ñàkk mun laa ñàkk kon la ci des mooy seen diggante ngeen rafetal ko ba kenn ku ne ci yéen la ko war sa diggam ak moroomam mu def ko na mu ko waree euh, te bañ a àndit ngir àddina ak ànd ngir jëmi suñ tubaa ndax koo àndal ngir boppam wala nga ànd ak moom ngir àddina rek bis ngay ngeen tàggoo te tàggoo bu jaarut ci yoon waaye bu ko àndal ngir yàlla rek bis bu ngeen tàggoo tàggoo ba daan rafet da ngeen am yàlla am sëriñ bi te ko am ñooñu ñekkoo dara waaw loolu mooy la ci ëpp solo waaw may laajaat ba tey sëriñ Mara ak soppe yi ndax soppe yi fu nekk la ñu jóge bu ma juumut Dakar Mbuur fu ne ay soppe nga fa léegi ki nga xam ne moom daf laa bëgg ngir yàlla ak jëmmi Sëñ Tuubaa ak xasaay di kooku sa diggante ak moom tamit nan la war a mën a demee ndax bari na ci ñoo xam ne ah, dan lay bëgg ngir Sëñ Tuubaa ak xaside yi mais yow bu yàggee ci sa bopp ci ngay nekk waxuñu ne yow ci loolu nga nekk ndax xam nañ la bu baax waaye àq ji lañ bëgg a xam rek pour ak la ñu waxtaanee tey jàngkatu xaside bi ak soppe bi ñoom ñaar lan moo dox seen diggante. Hmm, xamoo bëgg dafa am ak ah, ki ñëwoon si yorante bi di ko laaj bis penc mu koy laaj lu tax nga lu tax ngay laaj kañ la bis penc mu ne ko du julli gu bari du koor gu bari waaye bëgg naa yàlla ak bu yonentam mu ne ko almaru mahamman ahabba nit ku ne ka nga bëgg waa léegi yéenee bokk fu ngeen nekk xam nga bëgg day étape yu bari bëgg ngir yàlla wala bëgg ngir àddina wala lu ci ne dafa am àq am am warteefu ci am xam nit amulul boppam ki la tànn rek ni yow la bëgg ak numu la mën bëgg rek war nga ko yek delo ko bëgg ah, ndax fu ne la nit du joggé wala fu ne nga gis ku la fekk ci mbolo gis la wala ma ex yow jaral ko lu ne ko kay bu ñëwé ak ji am ci ndax doomu adam dafa for doomu adam yi gënewul morom ja mu bëgg ko téyegu ko ah gënewul morom ja mu bëgg ko ko ndax nit ñi mbul loon jang te kenn degli du am xaram waye bëgg gi nit ñi bëgg nak wan ne seen bop moo tax nu am sens am xorom kon liñ liñ leen mën a delloo mooy kenn ku ne yitte jëm yitte jum am ah, nga def ci la nga man ci saaxir def ci la nga man ci teewaay ndax kilay lay sagoo waxtu wu ne mooy dagg ay yitteem wala mu lay tudd ba suñu boo xewlee rek ñim laan tudd ci ci ñim daan tudd ci ñim daan tudd fa ci yow bun geesoo gees la xam ne yow mii kat jar ngaa bëgg waaye nit ki la bëggit nag. waxtu wu ne mu lay tuddee woo te du xew la gis la walla du la fekk fenn nga wan ko ah am ci yoon loolu day am àq kon kenn ko ne la la war ci moom ci bëgg euh, da nga koy delloo ba mat sëkk kii bëgg na xam ni doomu aadama dafa matadi ndax léeg-léeg nga fekk ko fekk nit ci mbooloo aajo jang ko jam la war a jox du ko joxaay waaye na nga xam ne gettaay ba ba nga koy fekk dana ni mel nit du toujours muy nekk waaye kenn ku ne boo ko jàppee ngir jëm yàlla rek mu jàppale ngir jëm yàlla rek ànd ba daan sax te kenn du sikkante waaw li ci ab solo daal mooy loolu te sëñ sëñ moom umpale wu dara waaw kenn ku ne moo la gën a xam sa bopp waaw kon li ci ab solo mooy yëg ni kii lii tax mu bëgg la moom it moom mi la bëgg it mu xam ni yow mii kii tax nga bëgg ko bu xamee ni kii tax mu bëgg la nga xam ni kii tax nga bëgg ko rek da ngeen mën a ànd benn rafet. ba tey sëñ Mara ñuy laaj ne. sëñ Mara moom dafa xaw a euh, jafe lool ci njàngum biir dëkk bi ndax lu ci ëpp boo ko bëggee jàngaloo day génn léegi ñuy wax nag sëñ Mara moom koo xam ne soxla nga ko moom fan ngay jaar ak nooy def ba ba ba mën a jot ci sëñ Mara ndax ñu bari daal loolu ñu ngi ma koy wax lool ñi daayira yu bari yi nga xam ne da leen daan jàngal ne leen mënatuñ laa gis léegi saa yu ñëwee ñu ne sëñ Mara génn génn génn léegi nag loolu daal lan ma ko yóbbante nag muy àq joo xam ne may euh, yóbbante àq la faaw ñu waxtaan mara man xamane 90 89 moy mara 2018 nit ko nak yok ngay ñaan euh tay sun borom mi ngi ko defal ngi sant yalla bax tubayit lan dekk euh nam tamale won di doxé bandu daan sakku sé du ni fekk ci fi tejuma buntu bobo ku ñew soxla ma bo ñewé bo ma fekké la nga bëgg dang ko mëna waaye nag daa mu yoon ndax eh, bis bu xësee jox mo nit moomatoo ko te xëy na ni ko waa àll bi soxlaa ndax ah, mel dañ ci gën a war farlu waa dëkk bi rek ndax nit moom boo mbir boo ko moomee nga dem ma mu yàgg mënu mënatoo caa jot xoolal sa bopp rek ndax noonu moom duñ soppi ko ah, man addina duñu soppi jamono soppi jamono duñu soppi wenn melo wooy tax nu soppi ndax ab doomu aadama lan woo xam ni ci yàlla lan jóge <clears throat> te ca la ñuy dellu te kañ lay doon moo tax doonu fas yéene lépp rafet incha allahu taala moom daal maanaam man xamul 90 ak 89 mooy 2018 bii nu nekk rek xam naa yokkute moo mel noonu rek waaye tamit damay dégg ñu ne sëñ Mara moom boo koy seet gisoo ko rek seet ko Kajoor léegi nag sa digg Kajoor moom lan bëgg a xam moom moom moom moom moom lu mu loolu tamit yóbbante nan ma ko. danoo weexu nu rek jiitu ci man waaye kun nga danaan Kajoor ak Bawol ak Siin rek ndax ñëpp ci bokk ay Kajoor nag daa njëkk ndax alxuraan dafa wax ni. waatul buyuuta min abwaabiha neeg bu ne de ko jaar ci buntu ba sunu burt nak moy kadior ndax ban jangalo ken jangalo gunu ba tey jii ku ne xacc ngir jëm yalla ak Sëñ Tuubaa eh, kon bu nu ma nee maaraam kajoor dana naan baax may kadior kajoor boole ci ba wa kadior fete wo dana fete wa kadior waye waaye ba wala ñepp ci ren bok ndax man sëñ bee ma moom xasida yi sëñ bee ko moom te taalibe yi taalibe la fu taalibe Sëñ Tuubaa nek rek foofu laa bokk da nga am aw dàkkantal woo xam ne foo ne sëriñ Mouhamadou Mara Seck da nga ci teg sëriñ Seexuna waaw kon ñu lay laaj sa digg ak sëriñ Seexuna moom nan la nan la ba foo ko sax maam maam maam bu ku la mën a woowee weneen tur bu ne sëriñ Seexuna rek nga ne est loolu tamit bëgg nañ nga leer ñu sa digg ak sëriñ Seexuna nan la mel. jërëjëf sëñ Jiiri xam nga yow fi nga waroon a tàmbalee sax nga mujjee hmm, li ma wax sànq rek noonu mel rek sëñ Seexuna la 89. Euh, laa bindub kaamil fekk Tuubaa Belel jébbalu ci moom 90 ma dem di ko siyaara ji koor jàng mun ma yow doo delluwaat Tuubaa dama lay téye ci koor gi sëñ góor a sekk meen moom nga dëkkal keroog moom laa jox paas moo ma jëlal sama yéere mu téye ma koor ban koor bay bëgg a tabaski ca la ma yewee am lu ma wax am lu ma def ca la ma sampe dal nga xamni nak bo boo deug deug mom euh sama ben seigne Cheikhouna la seigne Jili digg bi seigne Cheikhouna la mujj gi Cheikhouna moy sama sëriñ di sama bay di sama nday di sama lepp moy sama ad di sama alakhirah ndax nu mel rek moma dafa am lu mën a wax ci media am lu mënta wax ay man xamna mu xam tolu leer na mom ndax nu ma waaye di tuddee xam ma dàkkantal maara moom sëñ Cheikh naa doy ne sëkk ku ma gis rek xelam sa xel dem ci moom loolu nag moo ko fàggut def ko ci man naan ñaan suñu borom yàggal ko fi loolu te wéral ko suñu yéene ak barke xasaayit yi. booy wax ci sëñ Mara li li ñëpp njëkk a wax mooy sëñ Mara dong gi maam dong gi daal ah, ba ba ba ñu ci bari dañuy dégg tur yi lool lool lool waaye bu ñëwee ba egsi rek danaan ndax kii sëñ Mara ndax dongaag gu ëpp gi daal moom. loolu mom loolu mo moo jaaxal ñëpp dongaa gi lo lo lo lo lo lo wu la wala lo dund la wala wala wala wala wala lu nit mëna xam jeer jërëjëf señ jiri li ma laaj lepp nak looloo ma ci gënal man ab donga rek la bëgg doon ndax duma ma jinne du ma malaayika te duma waliyu ab donga rek la te it ki fi ëpp sol lu ëpp dara ëpp fi sol moy wayaf wayaf Mm. bo demoon ci fa ab safan am sax la dis mo fay dess way la wayef mom luy wayef rek dana yomba genné génne dis sun borom rek ko jagoo ah, ta lu jeur reuy sax dama ko gisut ndax bu fekk jankat ge tax jeur may reuy binuma ma yi bat bet joxuma ko sama bop sun borom momako jox katan gi moom ma jox xel mi moko def ci man len lo xamne ne ko jangate na def na ko sama bop ba tax ma wara reuy kon kee doonul ko jànkoot xasaayit defu ko ci bopam di ndax bim ko doone nit buma jang mo yekati yëkkati alalam di ma ko jox kon gënuma ko bu di jangit moy setan di gene ak rankoñam kon gënuma ko lii day lu yalla def ci man rek moy lo xamni ni ci mo. ji la ne bu ma noppee doon doomu aadama bu ndajee ci mbedd jànkat gu du feñ nit ge feñ moy nit moy nit ta no ma mel comme no mel nit ñee mel nak kon ken ken gënu fi ken ta ki nga mëna mom moy ki nga gis rek won ko ni def na la ni sama bop won ko ni won ko woyof won ko ni ya dib sang ma di dong koo def rek mom nga sama way nit ku ma di don ci àddina boppam ko ñor ko wan sa bop rek mu wan la bopam ah kon ah, li ci ep solo mooy doonub donga rek ah tayit it ñun ñep ay donga eh, lan ta seigne touba yakar, yaakar li ni mut wut ci seigne bi li tek li tek man li fek nu man ko amit moy woyofal nako manam may na ko woyof woyof di mën a maye nag mooy kenn ku ne koo gis nga def ko ni sa bopp loo yéene sa bopp nga yéene ko ñëpp ah, ni ma ko waxoon léegi rek diis dafa amul njariñ ta koo man la rek mu ne la mën a te bu baaba juboo du man waaye bu gi ñëwee nga ne ko yewa mu ne la yewa rek dañu dana man a daal di ànd loolu war te loolu la ñu sëñ bi jàngal ah ndax waccal saxiiranaa yu waqirul kabir waccal kabirana yu hinul saxir bu mag yërëmee ndaw rek ndaw weeg ndaw weeg mag waaye bu ndaw bu mag yërëmut ndaw ndaw du ko weeg kon ñaar yi dana man dana ñaar ñu yoo xam ne dañuy ànd te mun noo tàggoo ka nga mën a am ci moom dara daal mooy ka nga def ni sa bopp ndaw la nga mën a yilifir mooy ka nga ka nga yërëm boo ko defee rek liñ bëgg lépp dan ko mën a am loolu daal mooy doxe doxin wi tey it moom laa fas yéene doxee incha allahu taala. ndax ñu bari dañ ne ma sëñ Mouhamadou Mara Seck da da bokul ci jànkat yi nga xam da nan la tay dina ñew sa bis nga bass sa bass bam jek nga tok xaar ko tuddoo ñëw ta bari na ñukay def ñu laaj lolu ak deggu la wala xam señ tuba mi ngay liggéeyal moomu ci ba do wor moo do ko def wala wala lutax dal ni ko ñeneen ñi defé yow do yaakar la de man bëgguma ko tass sama yaakar ku bëgguma ko tass sama yaakar rek goruma tass yaakar rek kenn buma dess gora ndax eh, nima ko waxon sank jànkat yi moom ñu ngi fi ku bëggit ku jàngal boo demee am ko waaye nag ñi la na baas seenu baas ñi la yaana doy boo boo demu defalee leen bëgg rek fa yow ba kon goree la te man as gor lay fa si yéenee doon euh, loo xam ne nag euh, ku la ko def du la neex waru koo def nit loo bëggut ku la ko def boo ko def kenn loolu du dara ah, loolu du ngóor a ci man ah, du du njàmbaar xam li ma war di ko def la rek kese Ah, te it jàpp naa ne ñëpp kenn ñimewu ko damaa yaakaar loolu moom kenn ñimewu koo def ndax xalaatuma koo def te te it mboolem ñu jàng xasaayit moom xam naa ci ñi ci ñi ci gën a yées laa bokk moom ñi ci gën a euh, naqare jaxasool ci ci ñàkk ñàkk rafet jikko ci ñàkk jub ci ñàkk baax ñi ci des ñëpp ay sang te xam naa ñi ci baree ma gën tax lu ma xalaatu nag ñama gën doon ñama ko xalaat moom loolu laa jàpp incha allah. kon sëñ Mara am na xasida goo xam ne maa ngi dégg nga di koy jàng muy kufitu faaw nga ñaanal ñu ko ci ñaan suñu directeur bu baax bi di sëriñ Mbacke Dieng moom sant bi xam naa moom moo xaw a war waar saa yoo fi jaaree sant bi <laughs> waaw kon bu ko defee rek Diop la sant bu defee kon dañ ñuy dañ ñuy yëkkatil kufitu ñaanal ñu ci site bii nga ñaanal ñu ci doole sëriñ Tuubaa ak xasida yi man xam naa ne jànkatu xasaay nga xam naa ne ku sell nga ku bëgg sëñ Tuubaa nga te giñ naa ci sëñ ne boo ñaanee émission bi foo bëgg àgg fa dana fa àgg bi koy tàmbali tamit dama ne ci mii lañ koy tàmbalee ndax man yaay sama jëwriñ ci xasaayid kon bu ma dee def dara ci xasaayid ci yow laa koy tàmbalee ndaxte man régulement toog fenn ne sëñ Mara laa àndal toog fenn ne sëñ Mara laa àndal fu ma toog wax ko dañ xam ne ab murit nga te ku bëgg sëñ Tuubaa am na loo xam ne boo ko waxee nit ñi dinañ xam ba xam dëgg la wala dinañ xam ne ndax du dëgg waaye ku xam sëñ Mara xam na xam ne yow mi lii may wax ci yow dëgg la kon ku fit googu laa bëgg nga ñaanal ñu ci doole si ñàpp laat min bokk émission bi bokk ci émission yi ñëpp yi dégg site internet bi bokk ci site internet yi ñëpp yi dégg ci doole Serigne Touba xasida yi. Euh, sëñ Mbacke Dieng sëñ Assane Diop waaw ñu ngi bëgg lool ci sëñ jiili ak jotaay bi ci tàmbalee gi ngeen ko tàmbalee ci noonu yàlla doon seen njiglaay yàlla dem ba doon ay télévision yu bari li ngeen ci bëgg lépp yàlla defal leen ko. ay jaam lan tele na way sun borom tele wu dara te seigne touba man na lepp ah, nu ngi ñaan ci barke seigne touba yaakar yi ngeen am ci nun ba ñew ci nun jooje yaakar yaar bu mu tas te yal yal na ngeen ci am lu kawé seen jor ci barke Cheikhul Khadim te yaakar na non lay demee inshallah taala yal yal na ngeen ci dem banan li fogon ko ci won ndax nak lo fi gis ah, bu len ñe kenn bu len naw kenn lo fi gis ci ben la tambalé won rek te yalla moy joxé ah, lo gis nit am ko yow da ngay xir rek japp ne yaa ko war a rek ab ab jam day rafet jor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 كل ضرر الله بسر لا إله إلا الله كفيت كل ضرر الله بسر لا إله إلا الله هب مرادي كما واو بسر لا إله إلا الله يسر لي العسرة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 doon ànd ak jàmm ak salaam ci barke Serigne Touba émission bi nag ñu ngi ko doon tàmbalee fii suñu jëriñ Serigne Mouhamadou Mara Seck foofu lañ ko doon tàmbalee tey jii nii ñu ngi leen a joxaat dig daje képp koo xam ne nag yàlla dogal na nga bëgg jot ci émission bi boo jokkoo ak ñun rek bu soobee Serigne Touba Mbacke dinañ ñëw defale ko ni nga ko bëggee suñu site internet bi mi ngi tudd murit point info boo duggee YouTube rek boo tàppee murit point info rek incha allahu rabbil alamin nga di ko gis jërë ngeen